mbir mi ci coow dëgg la tàmbalee ci diggante yenn ci commerçant yi nga xam ne rek ñoo nekkee ci marché central bu Mbàkke ñi nga xam ne ñoo yor bokk moomeel gi kenn ku nekk fa nga nekkoon delloo na la fa ku nekk li nga amoon jox na la dara eh, am eh, kii li mu dara balaa gërëm gi duñ ko sëñ ko gërëm ndax bi ñu jógee fii nii ko sabab nag gannaaw ba nu ubbee marché bu Mbàkke bi lu jëm ci wàllu ko séddalewaat palaas yi loolee jafe-jafe dëgg la file. fii nii ñu ko bëgg a ay coow dong la fi indi marché ab délégué koy séddale mënoo nekk mënoo ñi séddale fi place xamuñu nu mu demee fii ñu fi nekk xaaj bi amuñu man xaw ma gaañu tudd mais xaaj bi amuñu te te dañu ko séddale nii kii daa am place moo def ko séddale nii coow dong lay jur ëllëg dégg nga ñenn ci jaaykat yi nag li ñu bëgg moo di ñu delloo leen place yi nga xam ne moom lañ amoon laata ñu leen di andi fële te na jàpp ne googal ak doxalin délégué marché bi waroon na ci am wàll te loolee gisuñu ko nga toogoon nga toog fa suñ ko defee ba pare ñi nga xam ne amuñu place ñu soog leen a jox place suñ leen bàyyi woon ak seen sox seen euh, xelu bopp ñoom mën nañu organise seen bopp te maire bi comme que defaral na leen léegi ñoom xam nañu responsable yaa ngi ci bi ku ñu wax ba Assane Sall mi ngi ci marché bi ku am fulla ku am fayda ku mën a taxawu jigéen ñi ku mën a jàppale jigéen ñi ta ñu jàppale jigéen ñi te gestu leen nag te xam ne jigéen yaay ñun ñoo ci kër yi ñoo leen di jàppale ci kër yi kon nañu bàyyi xel jigéen ñi te bañ a jël lépp rek des ko jox ko góor ñi parité la ñu wax góor jigéen suñu woroom moo xam kii am ak ki koy fekkee te it wax dëgg yàlla ñu ngi sant yàlla ginnaaw defar na ko ba mu baax kara na ko peinture ba mu baax laaju ñu ñaa dërëm ne kenn ku ne dañ la delloowaat sa place mënuñoo xëy delloo ñëpp benn yoon dañuy jox ñi tey bu subaa ñu jox ñu ci des maire dafa wax ne maire dafa wax ne maire dafa ne maire wax ne maire dafa wax ne kenn ku ne danañ la sa place lii la meer wax barki sëñ Fall ñoom nag jamono ji taxaw temm jatu ni soccet ngir ñu delloowaat leen seen place yi nga xam ne moom ñun dañoo liggéey suñ place yi jënd ko dégg nga lu wér fii place boo ko jëndee téeméeri junni ak nangam da nga koo jënd meer liggéey na ba mu baax weddi wun de kenn waxul na liggéeyut waaye nag bu liggéeyee ba pare na delloo ñun seen place ndax ñun tamit ay jigéen la ñu yor suñu njaboot ay may la may na ay jigéen la ñu yor suñu njaboot di te ñëwee si marché bi lu tolloog 5 mois ñu jafe-jafe Mohamed Seck nekk délégué municipal di ci indi ay leeral ne nag am na yeneen coppite yoo xam ne itam am na ci marché Mbàkke bile dañoo laloon ci mbedd mi loole itam duñu ko nangu certains changements parce que y une occupation anarchique des lieux euh, li mu fi nekk mooy fexe ba ku ne jox la sa place mais avec des mesures yu yu bees te mesures yooyu mooy aller dans le sens de trouver des de sortir des des allées pour que les gens puissent circuler et les marchandises pour autant que mu am ay éviter les encombrements surtout en période de Covid là loolu moo. waaw incompréhension bi c'est que puisque dañu nekk def ay changements même li ñu bëggoon mooy ñu ku ne ñu delloo dafa nga nekkoon mais puisque marché bi yokkuwul te génne na ay yoon ça veut dire que donc dina wàññeeku ay places yi. delloo ñëpp mais dinañ def aménage ba ku amoon peut-être 2 mètres am 1 mètre 50 ku amoon 3 mètres am 2 mètres 50 loolu mooy aménagement bi. c'est des problèmes de positionnement chacun voulait se positionner là où il avec les nouvelles dimensions ce qui aussi papa est impossible à cause des des de, de, de l'aménagement qui répond à une certaine norme moo tax il faut souvent ñu expliquer leen moom moom problème euh, en tout cas on consacre les violons. Euh, phase bi gënoon. 90 pour cent voire pour cent des euh, en tout cas de des personnes ont été recasées du marché donc euh, yaakaar naa trouvé nga waxtaan ak ñoom naa trouvé presque une solution on va faire l'aménagement tout de suite donc euh, d'ici demain on pourra les appeler pour les présenter les plans d'aménagement ku ci d'accord rek ñu installer leen et donc la d'ici le week-end normalement ñoom ñëpp dina xam seen ku nekk fi nga war a nekk ba tàmbali les travaux avant la fin du mois ñoom ñëpp war na mën a ñëw installé début du mois ñu ñëpp jaay si marché bi. jamono ji itam muy xamle ne lu jëm ci wàllu ko séddaleeg place yi lu ëpp def nañ ko balaa yàgg ku ci nekk ci commerçant yi nekkee ci marché Mbàkke bi dina jot sa place.